defal ñu ko mu doon xéewal bi nga xamante ne daf ñu ko jox majjaanan ñu sant ko ci xéewalam yu bari yam ñuy dottil waaye ñu doyloo ci xéewal yooyu rekk ñaari xéewal ya ñuy faral di fàttalantek mbokk yi te ñu doon xéewal yu mag ya yàlla di dottil ci kaw jaamam yi benn bi di xéewal joo xamante mboolem mbindaafoon ni ñoo ci bokk yem waaye beneen xéewal bi mu jagleel ko ñàkk ko gëm ña ko topp ci ay ndiglem waaye sore ci lépp li nga xamante ne mooy lamu tere te ñu di ko defee comme na ko yonent bi jàngale alayhi afdalu salaatu wa aska taslima beneen xéewal bu njëkk bi mooy xéewal bam ñu xéewalal jamono bu ñu déggee noddkat bi di nodd mu yëkkati baatu màggaayu yàlla ginnaaw bu ci noppee mu teg ci ne mu ngi séede ne muhammad yonentib yàlla la mu daldi ci teg ne kaay ci julli kaay ci la nga xamante ne fa ngeen di amee seeni texe kon képp koo xamante ne joxe nga waxtu woowu yonent bi sallallahu alayhi am la mu wax ci jamono woowu nee na gën julli fa yàlla mooy julli waxtuy fajar ci mbooloo bés ni ki waaw gën ci waxtu julli fa yàlla mooy ahabu salawaatu inda salaatu subhi fi jamaai yowm aljumaa julli ba yàlla sopp fa moom waxtu julli ba yàlla sopp fa moom mooy waxtu ba jullit bi joxe ci jàkka ji moo doon waxtu yu julli fajar rawatina bu dee daa tombeek yowmul jumaa bésu at juma yenentu bi sallallahu alayhi wasallama nee na waxtu boobu de waxtu bu yàlla sopp la fa moom waxtu boobu jullit bi di joxe waxtu yu julli suba ca mi waxtu boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama nee na ah waxtu boobu yàlla dakaa sopp lool waaw julli fajar ci mbooloo bésu arjum yonent bi nee na ah yàlla de fonk na julli yëpp waxtu julli yépp la sopp waaye bu mu ci gën sopp nag rawatina ba def ci jàkk ji ci ginnaaw tuuti mu tombeek bésu àjjuma ñu ne waxtu woowu bépp jullit ba ko jooxee ci jàkka ji xamal ne jëf nga jëf ju yàlla bëgg kon buñ la bàyyee yàq sa jëmm rekk ngir nga def la yàlla bëgg ci say jëf yi doo ko mën a xam ñàkk kaa xam nag tax na doo mën a xam la borom bi sopp doo mën a xam li mu bëgg doo xam ana wan jëf nga war a jëf mu tombeek bëgg-bëgg yàlla ci say jëf kon ci mu yónni ci xeet bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa bu dee moo ñu xamal waxtu sangam de jooxe waxtuy julli ci waxtu woowu waxtu wu yàlla sopp la kon bu dee yaa ngi bàyyi xel waxtaanu fajar bay jaar ci Rewmi FM 97.5 ci waxtu bi amaana du ñàkk nga am loo mën a taataan ci waxtu wi bu dee xamoon nga ko ba nga di ko def nañ leen bokk sant yàlla ci xéewal woowu bu dee yàlla dafa dogal nga réeree ko bi xamoo ko xamoo njariñ ba fa nekk bés tey walla bu dee yaa ngi topp ci suñu plateforme yi seen YouTube du ñàkk ngi taataane ci kàddu bi ñuy mel yenn ak mboolem auditeurs yi ñuy bàyyi xel ci waxtaanu fajar bay jaar fii ci Rewmi FM du ñàkk ñun ak yéen ñun ñépp ñu bokk di njëriñu ci la Yonent bi joxoñ ci waxtu wi gannaaw bu ñu déggee noddkat bi mu di ñu wax ci biir nodd bi rawatina ci njeexantalu nodd bi julli de moo gën nelaw ba ngi nekkee kon bu la yàlla delloowee sa ruux ba nga ximmiliku ci nelaw woowu yow it danga wara delloo yàlla njukkal ndax dafa am na ngeen sóobu woon ci nelaw bi nga xamante ni moom lañ doon def ci waxtu su néew ci ginnaaw ndax la koy waral walla la koy firndeel buñ demee xool ci suñu téere bu mag ba ñu yore di alquraanul karim mu nekk mujiza mu nekk miracle ba yàlla wàccel yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam miracle boo xamante ne amul kenn ki ko yore lu jiitu yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mu ngi ñuy wax ci téere boobu ci suratu zumar buur yàlla ne allahu yatawaffal anfusa xiina mawtiha buur yàlla de mooy buur bu am jëmm walla man-man walla sañ-sañ ba ni moy faat mbooleem bakken yay soobu ci dee bu ndaw ba ñuy duppee nelaw mbokk yi mboolem bakken yi sans exception amul dara lafa fa yàlla rocci walla la fa yàlla boolewul ci mbindaafoon yi lu dut malaaka waaw ndax ñoom ay jëmm lañ yoo xamante ne yàllaa leen bind ci leeram su ko defee lay jot doomu aadama walla la aadama di jëfandikoo ak melokaanam bokkut ak melokaanu malaaka waaye aaya bi doomu aadama yi ak lenn ci mbindaafoonu yàlla yi ñoom la concerné ba tax na mu ne ñu allahu yàlla mooy buur bi nga xamante ne yatawaffal anfusa mooy faat mboolem bakkan xiina mawtiha jamono bu ñuy suubu ci nelaw bu ñu naan dee bu ndaw dee bu ndaw ba bakkan yi di suubu di ko def te mu doon nelaw te buñ ko defee dootuñu gis dara dootuñu dégg dara dootuñu yëg dara kon dee bu ndaw a ngi nii mu tuddee ko mawut mu nekk nelaw buur yàlla ne jamono bu bakke ni yépp soobu ndoor dem defi jëf jooju di nelaw te mu doon dee bu ndaw bur yàlla ne wallati lam fi manaamiha bakkan ji nga xamante ne duma ko yenu nelaw bu diis kooku dafa am lu muy jëflanteek moom nelaw bu woyof la ko yàlla di installé nelaw bu woyof la ko yàlla roof nelaw bu yamamaay la ko yàlla di yenkeewal mu nekkee noonu nelaw bu woyof boobu mënees nañ koo duppee sëngéem walla jayaxu xeetu nelaw la yàlla lay soob mu àtte ko ko soob kooku du ñàkk nelaw waaye du nelaw nelaw bu xuut nee na fa yumsiku leti qada aleyha al mawt jamono bu bakke ni yépp soobu ndoor dem defi jëf jooju di am nawum te mooy nelaw buur yàlla ne bakken bi ma nag ah ci ki ma dogal ne dafa war a des ci nelaw boobu kooku dama koy faat mu des ci nelaw mu ne nag ñetteel baa ngi nii mooy wa yursilul uxra ila ajalin musamma waaw beneen bakken bi nag te mooy ñetteelu bi ñetteelu bakken bi buur yàlla ne ñu kooku de dama koy delloo ci jëmm bu mu jógee ko woon laata muy suubu ci géewu nelaw ci jëmm bu mu nekkoon balaa mu doon suubu ci nelaw bi kon bu sóobu ci géewu nelaw ba noppi ci sama nameel ndegem jotuma bëgg bakken boobu faatu borom bi ne woo yurusilu mooy yónni delloo al uxra beneen bakken bi ilaa ajalin musamma ba waxtu ba mu dixalanteg bakken jooje kon bakken jooju day dellu ci jëmm ba mu bàyyee ko woon mu continuer di dundu ba keroog appam di jot yalla di ko jëlee ci kaw suuf yàlla ne yow doomu aadama bi inna fi daalika lamala ma joxoñal nii mu ngi ci de la aayaatin kawtef boo xamante ne li qawmin yatafakkaruun ñay am xel ñay xelaat kawteefu yàlla ñoo koy xelaat ñoo koy xalam ñoo koy seetlu ñoo koy bàyyi xel jalla wa ala kon boroom xel yii la yàlla di waxal ci aaya bi subhaanahu wa mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot xam ngeen ne bés ni ki tey mooy yowmul jumaa tey jii mooy bésu ajjuma mu tombeeg fan ak ñaar weeru safar moo tombeeg gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mille année bi mille quatre cent moo tolloog gàddaay yonent ak suñu jonn yàlla ji di tey tombeeg ajjuma fukki fan ak ñaar ci weeru safar ñaan ba ñëw ci waxtaan bi mooy yow jullit bi del dëkk say yoxu di ñaan sa borom di ko ne allahumma igfir li zanbi wadxilni yowma alqiyaamati madxalan moo danga war di ñaan sa borom saa su yow jullit bi di ko ne allahumma buri yàlla igfir li zanbi yàlla nga ma jéggal samay bàkkaar ya ma taq yàlla nga ma suturaal ci bàkkaar ya ma def gannaaw boo ma nangulee li ma la ñaan nii waddu xil nii yàlla nga ma tàbbil duggal ma yowmal qiyaama keroog bés pénc ci sa këru xéewal ba ñu naan arjanna mu doon madaxalan duggukaay boo xamante ni kariman duggukaay bu tedd bi te duggukaay bu tedd keroog yowmal qiyaama du fenn fudut arjanna moo tax ñu nit ñu ngi bokk mbokk auditeurs yi di ñaan borom bi di ko ne allahumma ghfir li zanbi wadxilni yowma alqiyaamati madxalan karima amin ya rabbal alamin yal nañu yàlla nangul lañ ko ñaan ni mbokk bokk na bi léegi ci xéewalu yàlla yi ci xadiisu abdullahi bun mas'ud radiyallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna lillahi malaa'ikatan sayaaxiin fi l ard yuballighuunani min ummati salaaman rawaahu nisaa'i sallallahu alayhi wa sallam ci xadiisu abdullahi bun mas'ud radiyallahu anhu saxaabi bi nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee mu nañu inna lillahi malaa'ikatan sayaahiin yàlla de mu nga fa moom yàlla dafa am ay malaaka ñi nga xamante ne ñooy wër ci kaw suuf si di xool di nemmeeku di gëstu di bàyyi xel ñan ña nekk ci kaw suuf si mbindaa foonu yàlla ya ci kaw suuf si yuballighuuni dañ may yëgge min ummati ci sama xeeti salaaman nuyo yàlla suñu boroom tabaraka wa taala yonent bi nee na dafa yore ay malaaka yi nga xamante ne dañuy wur ci kaw suuf si di nemmeeku jaamu yàlla yu baax ñi ñu di leen nuyu ñu di leen nuyu ñu malaaka yooyu bi maanaa noolu leen yàlla bindee looloo tax yàlla bindi leen wàcc leen ci kaw suuf si ngeen di ma nuyul xeetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal nañu yàlla boole ci ña malaaka yi di nuyu ci kaw suuf si amin ya rabbal alamin mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yenn ak seen njaboot ba léegi bokk na ci xéewalu yàlla buur bi tabaraka wa taala la mu yenkeewal doomu aadama bi surtu yow mi nga xamante ne yaa nekk ci daairatul iman yow la yàlla di waxal ci suuratul ibrahim mu ngi demee xool ci fanweereelu aaya te aaya dinañ fa fekk buur yàlla tabaraka wa taala di wax ak way gom yàlla ñi ci xeetu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye mboolem doomu aadama yi xamaale ci ne yàlla wàccoon nag ñun ndax xéewal yam ñu dottil mënuñu koo lim ba tax na képp kuy woy gom yàlla na nga aaya bi ci yan la dépare mu jeexe ci mboole mbindaafoon yay dukkat ci kaw suuf si rawatina doomu aadama bi mbokk yi buur yàlla mu ngi leeral aaya ba mu wàccee ci alquran ba mu jox yonent bi suñu maam yeeg suñu sëriñ yi ñu diñu ko gardel ñu duñu ko wottul ba tey suñu sëriñu daara yi jot si bi léegi ndongo daara ji mel ni ñun ñu nit ñu jot si waaye nag ñu di ko nab nabe képp koo xamante ne yang ñuy bàyyi xel ci waxtu wi ñu ñaan yàlla suñu borom yal nañu ko yàlla jàppandalal ñu mën kaa faram fàcce comme nu mu nekkee waaye buñ ko faram fàccee comme mu nekke comme nu mu nekkee yal na ñu yàlla jàppandalal ñu mën ko jëfe ci suñu kémtalay kattan amin ya rabbal alamin mbokk yi buur yàlla mu ngi leeral yenent bi ci téere bam ko jox baada audu billahi min ashaytaani rajim buur yàlla ne yenent bi ne qul li ibaadiya alladina aamanu yuqiimuu salaata wa yunfiqu mimma razaqnaahum sirran wa alaaniyatan min qabli an yaatiya yowman laa bayun fiihi wala xilaal allahu alladi xalaqa alsamawati wal ard wa andala min alsamaai maan fa axraja bihi min alsamarati rizqan lakum wa saxara lakum alfulka litajriya fi lbahri bi amrihi wa saxara lakum al anhaaru wa saxara lakum alchamsa walqamar daaibayni wa saxara lakum leyla wannahaar mbokk yi buur yàlla tabaraka wa taala mu ngi wax ak yenent bi ngir mu baaxe xeetam waaye rawatina woy gëm yàlla ñi buur ne qul waxal yow sama ndaw yow sama yonentu nel li ibaadiya alladina amanu sama jaam ñi nga xamante ne dañoo gëm yàlla gëm la yow yonentu bi li nga andi jëlee ko ci man ñu di la topp ci say ndigli di bàyyi lépp loo tere sama jaam yooyu laa bëgg nga partagel ma message ba ma la bëgg jox nii buur yàlla ne ko kul waxal li ibaadiya alladina amanu ci sama jaam ñi nga xamante ni dañoo gëm yàlla wéttal ko yuqiimu salaata nañu taxawal julli ci waxtoom wa yunfiqu nañu dépenser ñuy financer mimma ci la nga xamante ne razaqnaahum wërsëgal naa leen ko ci alal sirlan moo xam lu nëbb la wa alaaniyatan moo xam ci lu feeñ la nel sama jaam yama gëm nañu taxawal julli nañu fonk waxtu yi julli waaye nañu dépenso nañuy joxe ca la ma dénk as tuut la ma nañ si comp tuut ñu di ko financé ci fa ma bëgg mu doon fi ma gërëm man yàlla buñ koy def tamit nañ ko def moo xam ci lu moo xam ci feeñ la kon joxe ci lu nëbb baax na waaye joxe ci lu feeñ tamit baax na yal na ko ngistal bañ a lal dong waaw yal ko ngistal bañ a lal rek ngistal moom bu fa bokk waaw yàlla ne def leen li ma leen wax nii de min qabli an yaatiya yowman laa bayun fiihi wala xilaal waaw dépenser leen li ma leen jox ci lu feeñ ak ci lu nëbbu lu jiitu bés di dikk bés bi nga xamante ne jaay ak jënd ak commerce dem ak ñëw dootul am ci bés boobee bés bi mun naa doon bés bi ngay tàqale ko àddina dootoo mun a bouger mébét yooyu day ñëw installé ci say mémoire dootoo ko nekkee waaw bés boobu mën naa doon yowmal qiyaama nga xamante ne jeex na dara amatul kenn amatul occasion pour def leen léppay taxaw yàlla ne santaane bi ma leen santaane nii na ngeen ko def lu jiitu bés bu mujj bi di taxaw su ko defee dara dootul fonctionner mën naa doon bés bi ngay taqale ko àddina ko mën naa doon bés penc buur yàlla ne allahu yàlla mooy buur bi nga xamante ne alladi mooy buur bi nga xamante ne xalaqa moo bind assamaawaati juróom-ñaari asamaan yu tegaloo wal ard ak juróom-ñaari suuf ya tegaloo ci suuf wa anzala ba léegi bokk na ci kattan ak sañ-sañ ba yalla am wa anzala mooy buur bi nga xamante ne mooy wàcce mina samaa i si kaw asamaan si maa an ndox bi fa axraja mu di si génne bihi ci ndox woowee mina samaraati ay meññeef risqan muddi wursak lakum ñeel leen wa saxara mooy buur bi nga xamante ne moo leen tàggatal lakum ñeel leen alfulka ay kargo ak ay bato yi nga xamante ne li tajiriya fil bahri ngir kargo yooyu di daw tëmb ci kaw géej gi waaw kargo bato yu nganda yu nga xamante ne danga leen di gis ñuy xuus ci océan di jóge ko dëkk bi dëkk yàlla ne man yàlla maa leen tàggatal géej gi ngir gaal yu ngande yi di di ko traversé du jóge ko dëkk bi dëkk du borom capitaine bi de du capitaine bi moo mun du du du gaal gi moo mun daw yàlla ne wa saxara lakum man yalla maa leen tàggatal ay cargo yu ay cargo yu ngando yoo xamante ne lu ñuy yëpp ci ay conteneur kenn mënu ko imaginer li taajiriya fil bahar ngir mu tegu ne nong ci kaw géej gi muy xuus jóge ko dëkk bi dëkk yàlla ne nag loolu lu tax ngeen di ko mën a jëfandikoo bi amrihi ci ndigalam lay wéye de gaal googu ci ndigalu yàlla lay wéye ci biir géej ba muy xuus du jóge koo dëkk bi dëkk ci ndigalu yàlla lay wéyee ci ndigalu yàlla lay amee de moo tax yàlla ne na yàlla ne ñu bi amrihi ci ndigalam wa saxara lakum bi léegi moo leen tàggatal al anhaaru ay dex ay dex yi nga xamante ne ndox bi day wal kenn du xam fu mu jóge kenn du xam fu muy jëm yow moom dang koy gis rek muy wal ci xeer yi di wal wali di dem rek waaw te kenn mënu koo fermer nag kenn mënu koo téye de boo fa nekkee di ko fermer yow yaay perte say rek ndax yàlla moo ñu tàggatal loolu wa saxara lakum bi léegi mu tàggatal ñu ashams jant bi nga xamante ne haa bu jant bi fenkee nga xam dëgg la nga xam ne jant bi fenk na waaw jant bi fenk na ndax day galvaniser sa mémoire boo waree xëy dangay ngay xëy waaw boo waree jóg da ngay ndax jant bu fenk dafa am relation bu mu am ak sa dund ndax temps bi ngay dund dafa am temps boobu lala si njëriñ boo ko perte ñàkk nga ko waaw liggéeykat bi ci fenku jant bi lay sukkandiku ak leneen ak leneen ak leneen montor bi nga takk sa loxo ci doxalinu jant bi ca ngay sukkandiku xam ba nu waxtooy jot moo tax mu ne ñu wa saxara lakum ba léegi man yàlla maa leen tàggatal ash-shams jant bi ak njëriñ ja fa nekk wal xamar ak weer bi man yàlla maa leen ko tàggatal de boo ko weddee laajal sama gaay ña xam weer bu dee ha su ko defee gaay dañuy nekk rek di xaarandi waaw waxtu bi bu xawee nigandiku tuuti sax su ko defee voilà nga xàmmee ko ci seen ci seen ci seen melokaan waaw maçon bi waaw employé bi waaw su ko defee manœuvre bi journalier bi voilà embauché bi waaw travailleur bi toujours weer bu dee dafa am la am relation ba dox diggante weer bu dee fanweeru fan ak jëmm doomu aadama yàlla moo def sa dund mu am relation ak weer bu dee moo tax mu ne ñu wal xamara ak weer ak bépp njëriñ ba fa nekk daa ibay ni ñu doon ñaari mbindaafoon yi nga xamante ni yàlla moo ko créé mu def sa relation ak ñaari mbindaafoon yooyu jant bi ak weer wi ngir nga di si mën a bénéficier wu ci sa dund wa saxara lakum bi léegi buur yàlla ne ñu maa leen tàggatal al guddi ngir ngeen di si noppalu wan naxaara ak bëccëg ngir ngeen di si war a mën a faggu la nga xamante ne mooy lay doon seen wërsëg guddi ngeen di si dallu di ci nelaw di ci noppaleku waaye bëccëg ngeen war a mën a am jot pour xëy dem kër-kër yi am la ngeen di war a mën a suturloo bu dee yàlla andiwul ñu fi guddi ana kan moo ñuy andil guddi ñu du si dalloo kenn du scientifique du buxaaba du borom xam-xam du intellectuel du philosophe du kenn képp kuy sow cowkat ñi nu ñu bëree bëri ak na ñuy tiitaroo yàlla bu ñu andilu toon guddi du ñoom ñoo ñu koy andil de wala bu ñu andilu toon bëccëg du ñoom ñoo ñu koy andil kon yàlla moo ñu wërsëgal moo ñu tàggatal jëmm joo xamante ne wala climat bi nga xamante ne mooy climat wu guddi mu tàggatal ñu climat bi nga xamante ne mooy bëccëg ngir ñu di si war a mën a bénéficier wo yàlla nee na nag ah li ma wax nii rek xarama yem foofu mais ëpp na kenn mënu ko lim moo tax mu tëjee aaya bi wa aataakum yàlla moo jox wa aataakum yàlla jox na leen may na leen min kulli ma saaltumuuhu ci lépp li ngeen ko ñaan lépp li ngeen ko soxlaal yàlla nee na baaxee naa leen ko waaye jox naa leen sax loo xamante ne ñaanu leen ma ko yàlla nee na wa in tauddu bu dee da fi nekk nan da ngeen di géema lim ni'matallahi xéwalu yàlla yi laa tuxsuuha du ngeen ko masa dajal di ngeen ko masa matal déet ngeen di ko dajal déet ngeen di ko matal kenn na matal xéewalu yàlla ci doomu aadama kenn na dajal xéewalu yàlla ci doomu aadama waaye yàlla buur bi nee na li fi nekk mooy innal insaana naka doomu aadama bi de daf di jëmma joo xamante ne la zalumun kaffaar aji tooñ ci boppam waaye ku gaawa a weddi xiiwolu yàlla jalla wa ci moom mbokk yi yàlla ñu yàlla may dégg ak topp waxtaan bi jeexut dañoo yëg si fu ñu war a yëkkati jotaay bi fas yéene jébbal bërëb ba ñuy joxe xibaar ñu ñaan yàlla suñu boroom allahumma aati nufuusana taqwaha wa zakkiha wa xayra wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha allahuma ya rabbi aminna fi awtaanina wa aslih aimmatana wulata umurina allahuma ya rabbi ihfad biladana min alfitan ma dahara minha wa ma batan amin ya rabbal alamin baaraka allahu lii wa lakum fi lqur'aani alazim wa nafaani allahu wa iyaakum bima fihi min alayaati wa dikri alhakim aqulu ma tasmaun salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu